à un moment donné ñëpp dañ doon posé ay question mhm. groupe Futur Média lan moo ko téye mhm. mais da nga doon gis njàpp tey ji mu mel nii benn benn benn Barça wala benn Real quoi yow daanaka presse bi kàngam yëpp récupéré nañ la ñu ngi bi te ñenn ñi boo déggee seen salaire yow tu n'en reviens pas. Hmm, ils ont de très gros salaires. waaw mais léegi loolu tey jii loolu noonu lépp lépp lépp lépp lépp est-ce que boîte mën na tenir pendant des années. malheureusement ni am fa salaire yi ni Moustapha euh, man je dis que lan la ñu apporté. parce que bien émission la ñuy am semaine du gën cee bëri ñaar. parce que tour la ñuy c'est des stars en fait ils ont plus plus beaucoup de stars. loolu ça pose problème. oui parce que pour man bu fekkee ne njàpp dafa yor boîte am mu jël benn Moustapha waaye bu jëlee Moustapha dem beneen boîte jëlaat fa keneen jëlaat fa keneen après doo plombé sa bopp mm. léegi après nga def nii jéem a fooy fayee def nii après nga xëy embauché nga damay dàq cinq personnes yaa dàq yaa la njëkk yaa la njëkk provoqué mm. parce que amaana boo yemoon ci Moustapha ak Abdou Khadre ak keneen ak keneen ak keneen koo jël ñaar ñett di nga mën a tenir. Mhm. di nga am say revenu nga nga nga gérer ko. loolu mooy problème bi jiitu mooy problème gestion personnel bi nga xamante ne pour man parce que amoon na ne dañuy déployer ñi ñi dem si rajo bi ñi di def ñi nangam ak nangam mais pour man amoon na nu ñu doon gérer seen personnel euh, mbir yi dina wàññeeku. Mhm. beneen mbir bi ci amaat mooy coowal l'impôt bi. Mhm. parce que man je pense que l'impôt bi bokk na tamit ci leen sonal gis nga boo amee entreprise ci dëkk da ngay fay l'impôt njàpp. nañ waxante dëgg. boo nekkee ci entre nekk ci dëkk da fay l'impôt loolu kenn mënul taxaw ne nit dafa nekk fii parce que nii non dama jege nii El Hadj Ndiaye ngi fi c'est exemple. Mm. ku ko gënoon a jege Macky Sall dafa am. Mm. mais teewul dafa daan fay lempo. en tout cas boog dégguñu ko si coowal lempo yi en tout cas dégguñu ko si dégguñu ko ci yenn yooyu pour man loolu bu ñu ne bori presque 40 ko amee ça pose problème bi. Futurs Médias moo am problème bi. ITV. Walfadjri. 7TV. Walfadjri. Walfadjri yàgg na ci. voilà non ñoom dañ ko maanaam Walf moom Sidy <laughs> moom yàlla na yàlla yokk leeram moom wane na ne ndekete du moom moo bañoon fay le temps qui est jox na ko dëgg mooy jamono dox na ba ñu wane ndekete Sidy mu ngi doon gérer Walf gérer gu jaarul ñee ñoo newoon ci leneen mais bu dee liggéey fayeeku def rek comme ni ko Sidy nekkee woon presse bi doxul xam si def noonu presse doxul ñu ko presse dox na yaa ne yaa bëggul fay léegi le temps qui est jox na ko dëgg. mais non damaa bëgg ngeen taxaw ci.

gars yi mbir yaa ngi bëgg leer de mbir yi jamono jii mi ngi gën a leer waa Groupe Futurs Médias nag jamono jii ñi ngi gën a nekk ci ay xat-xat ndax mi ngi am ñenn ñi nga xam ne ñi ngi démissionné doy na waar nag ndax jamono jii am na ñi nga xam ne ni ñi ngi biir Groupe Futurs Médias di liggéey muy ay sénégalais yi nga xam ne ni boo moytuwul rek dinañu perte seen liggéey. te loolu nag luñ ko kenn jamono jii ne ak fi réew mi toll wax dëgg yàlla ñaanuñu kenn muy perte liggéeyam donte nag ñii di waa groupe Futurs Médias wax dëgg yàlla seen taxawaay moom vraiment kenn xamul lu mu doon ndax gisoon nañu ñii di waa groupe Futurs Médias képp koo xam ne nii aay nga wala nga man li nga xam ne nii yaa ngi koy def wala rek koo xam ne nii nit ñi ñu ngi lay bàyyi xel di la topp woowoon nañu la signé le contrat. di la fay sa te nag contrat bi ñu lay signé contrat bu duul lay doon boo xam ne nii doo ko mën a am fenn pour rek nga ñëw dal di mën a nekk ci seen télé boobu yi mais gars yi instant bii nii mbir yi mën fay compliqué lu doy waar moo fay waaj am billaay loolu nag boo amee instant bii nii mën nañ koo jiñ état ne wàllum impôt yi moo tax lu jar a bàyyi xel. Israël nii li fa nekk di am nii nii nii nii rek lañ ko nar jii ji te pourtant de am na ñi nga xam ne ni ñu ngi démissionné te ñoom dal daal dinañuy xamle ne rek li tax ñoom ñu démissionné sax dafa am ñi nga xam ne ni boo moytuwul dinañ leen wàññi ni leen mënatuñ leen a fay loolu nag gars yi bu amee wax dëgg yàlla ci réew bi day nekk lu xam ne lu yéeme lay doon ndax jamono jii nii Sénégal ñuy wàññi ay nit maam ñuy ñàkk seen bërëbu gaay ay nit ñoo xam ne dañuy ñàkk seen bërëbu gaay loolu jamono ji Sénégal soxla ko mais nag situation bi moo fa toll ndax wax dëgg yàlla ya, ku nekk xam ne ne jamono ji réew mi fi mu toll ak groupe de presse yi nga xam ne nii bari na ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ya, doxaluñ dëgg-dëgg yoon mais nag pour ñu doxal yoon faaw rek yàlla dal seen kaw ngir ñu daal di mën a jubalaat mais ñii di waa groupe Futurs Médias li ñu doon doxe ñëpp xam nañu bo ayé wala nga xam ñett di la déglu sax ñu wala ci seen télé wala seen rajo signal le contrat bu dul nga nekk ci sa jamm ñu di la fay sa weer des fois sax ñu yóbbu la au frigo mais nak mi ngi non fofu la réew mi toll jamono ji nak ñi ngi xol fan la wane di mujj gi gëtam dañuy fay impôt wala dañuy jël impôt bi dal né li ñu état teg mo 10 ba tax na jamono ji faaw ñu wañu ñi ngi xaar lolu ba xam ñoom wa groupe Futurs Médias lan lañ ci nara def ñoom ñoom ñoom mais nag ñu ngi ñaan yàlla ba bu ñu dàq kenn nañu ko ni di liggéey di gën a yokk di jëm ca kanam te liggéey bi tamit ñu teg ko ci yoon réew mi gën a am jàmm ñu déglu nag buñ sa jógee dañuy déglu ci ki nga xam ne moo di Serigne Cheikh Thioro Mbacke moom nag sànni na kii di Farba Ngom xeer yi ngan na ngan ay force spéciale ay terroriste ñoom jamono jii li ñu daan jiiñ waa Pastef moom la leen Cheikh Thioro Mbacke daal di jiiñ ginnaaw bi nga xam ne ñoom faat nañ fi ay nit ginnaaw bi ñu fi nekk ci ak njiitu réew Macky Sall def yu ne nag ñu déglu ji sëriñ Cheikh Thioro Mbacké li nga xam ne fasal na ko fële ci assemblée nationale. monsieur le ministre li Sénégal yépp di xaar ci yow di ko wax président de la république Bassirou Diomaye sénégalais yi kontaanuñu sénégalais yi mer nañ sénégalais yi ñaar ak ñett ñoo toog dañ naan yéex gi dossier yi yéex moo leen xaw a jaaxal ndax bang bang gi ak bañ bañ lu gi du dara lu dul di ngeen yéex ci yenn dossier yi kon jàpp naa loolu war ngeen koo baral ñi nga xamanteni ñoo ray sun 84 personnes yi te ay sénégal yo xamanteni sénégal yoon mo leen moy ñu génn manifesto légalement ñu tiiri leen ñooñu ñi leen ray war nañ ko feñal di nuyu nak sa mbokk force spéciale yi tok toog sa mbokk force spéciale yi ak rebel yi ma ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen way seen taxaway ci réew mi rafet na moo tax alternance am tay ji bu honorable député Farba gom togué fi mën yaru yaru bu togg ni yeen yeen ko waral wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Cheikh kàddu yi la yëkkati jagleel ko ñii waa APR yi nga xam ne gars yi ñoom waa APR def nañ lu ne ci réew mi def nañ fi lu ne lekk mbalit rek lañ fi deful lekk mbalit la fi waa APR deful mais waa APR def nañ lu ne ci réew mi ba mu lekk mbalit lépp loo xalaat rek waa APR def nañ ko fi ñii ay terroriste sax ñoo leen tere ci am réew ñoom waa APR yi ndax lépp loo xam ne ni ab terroriste dina ko def ñoom waa APR def nañ ko ba def nga xam ne sax ak terroriste bu ko def ñii moom bayaboo rek ñu wutal leen waneen tur ñu wutal leen waneen tur bu bokkut ak terroriste ay forces spéciales yooyu noonu faaw ñu wutal leen waneen tur bu bokkut ak wii nga xam ne moom la ne Cheikh Thioro jox ndax wii nii wax dëgg yàlla dafa woyof ci waa APR waa APR lekk mbalit rek lañ fi deful mais def nañ fi lu ne ci réew mi lu ne def nañ ko ci réew mi rawatina kii di Farba Ngom far Farba Ngom nag dégg naa ko fële ci assemblée nationale muy wax waxe ceeb mu ne day kaasal ñenn ci sénégalais yi moom Farba Ngom ndax yéen sénégalais yi bi fi bi nga xamee ne njiitu réew Macky Sall mi ngi fii ci réew mi dégg ngeen benn yoon kii Farba Ngom ne ceeb nañu wàññi ceeb wala mu ne ceeb rek ndax yéen sénégalais yi dégg ngeen benn yoon Farba Ngom mos ko wax ci assemblée nationale te jamono boobu li ñuy dund ci réew mi jamono boobu la gën a nuyoo te kenn musul dégg Farba Ngom ne nañu wàññi ceeb ñi doon dóor di leen dóor tere ci réew mi jamono njiit réew Macky Sall fi la fekk Farba Ngom ndax mos ngeen a dégg benn yoon lu yëkkati kàddoom ne ñi gone yi ñu dóor wala gone yi ñu rey nañ ko bàyyi kon bu ñu demee ba tey jii mu ñëw mu naan ceeb ay diw ay yi loolu ay waxi sareet la Farba yéen di leen fi dese une minute la waaye ba ngeen nooyee li ngeen di nooyee te xam ne fi ñu jëm ak yéen wax neeku fi fi jëmal yoon ndox ko fi moom nag wax na ay ceeb ak ay diw ak ay ñan daaxte poor ak ay ñeneen ñi ñeneen ñee yow loo xam ne nii bi nga fi nekkee dafa wulli woon ñaay bi nga fi nekkee la gënoon a bëri fuuf te waxoo ci woon bi ñu ray fii booy yi waxoo ci bi ñu jënd fii ay fetal di tiire booy yi waxoo ci boobu la dund gi gën a seer waxoo ci ba tey mi ne farba yow da nga naan dund gu seer bi ceeb bu seer bi diw bu seer bi may wax ñoom ñu osé ba dee naan dañ lay yéen wa apel nak du ngeen rus yéen du ngeen du ngeen rus quoi du ngeen rus yéen du ngeen rus ndax bu ngeen doon rus bu ba waxe sax ngeen man a sëgg ak yooyu noonu mais du ngeen ko tàcc mais ba ngi wax yëgal ko ngeen ni yaa da ngeen koy tàcc ci li nga xamne wax na ko te bu ngeen fi nekké la dund gi gëna a bu ngeen fi nekké la réew mi gëna nekk ci ay jafe-jafe mënoo leen ko kaas ba ñu dir assemblée nationale boobu mais tay nak wax neex na ndax jamono bi dañ leena may liberté motax yeen dossier yi lañ wara gaawu taxaw ci tem ñi nga xam ne ne jël nañ alal bi am na fu mu bañ surtout moom farba waaw dégg naa ko nag muy sànni baara dóor bi moom baara mu weñ la rek baara moom baara moom weñ la waa parce que ko xam nañ ko baara weñ la rek fu tooy mu dal léegi nag instant yi moom xam na ne waa Pastef ñoo xewle pour la pour l'instant nii waa Pastef ñoo xewle faaw mu euh, jéem a euh, dal seen kaw affaire yooyu noonu jéem a teer quoi ndax fu la seetee moom nag am na lu mu wax loo xam ne lu am solo la loolu moom ñu ngi ko ci doole pour mu gën koo jëmmal muy livre bi nga xam ne ni moom wane na ko fële ci Assemblée nationale ginnaaw bi nga xam ne ni ñii di waa APR ñoom nee nañ dañoo wane bilan Macky Sall la ma lañ wax bari na la nga xam ne nekkut nekkut ci biir bi ñu présenté gars yi ñu déglu ci ki nga xam ne nii moo di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 lan moo tax ngeen bëgg ni gouvernement bi na ko déposé waat ma déposé ko baral li gën kay moy génn leen ko ñu wote ko mu jeex ben yoon bu fekkee li ngeen di wote dëgg la si yéen kon japp naa ni loolu amul sens monsieur le président bo xolé tay ji may wax yow ci suba bi ma xëyee déposé na proposition de loi bo xamanteni day def peine de mort loi baa ngi déposé na mi si kon japp naa ni ñaar yooyu yëpp mi ngi seen kawta taal bu ñu ko jàllul yéen noonu sénégalais kon japp naa loolu ay waxal man nak monsieur le président yeen askanu Sénégal dama dégg xalé Macky Sall indi livre blanc man livre rouge la indi mi ngi ni le livre rouge livre rouge boko boo ko ju ñaaw ji Macky Sall de fukki at ak ñaar yépp mu ci livre bi dina ko publier inshallah allah fan yi armata dinaa si wax ak ñom léegi le livre rouge bi bokk na ci le scandale judiciaire scandale foncière emprisonnement torture assassinat manipulation lolu Macky Sall moko def ci réew mi Macky Sall en 2012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

ba pare ngeen bëgg nak dëgg fi tok di toog xalaat askan wi loolu duñ ko accepté tay duñ ko accepté ëlëk kon monsieur le ministre yëppante la bo xam seen demande sociale pour le peuple sénégalais moy nan tass assemblée nationale ba pare ñu jàpp leen tëj si kaso parce que ñi waruñu ñoo dox yeen warut ñen dox ci dëkk bi yéen yéen sàcc xaalisu réew mi yeen ray nit ñi kon japp naan tay Ousmane Sonko gàcce nga laam Bassirou fa ci gàcce nga laam su wér ma jërëjëw salaamaaleykum Cheikh Abdou Bara maa ngi maa ngi yóbbante Cheikh Thioro commencé na am dunguru ndax mom ay carte lay jouer mom ay carte lay jouer c'est sûr que dina Cheikh Thioro ba ci di tax muy rek Cheikh Abdou mais na ngeen moytu la. merci fu bokk rek élection du gagné. loolu moom ngeen moytu suñ ci boole demande sénégalais yëpp la opposition pouvoir mooy lan ceeb diwlin café meew soble kaani poobar ma voté ak mburu yoy yëpp buñ ci bolé won yoy solution ma voté ko ñoo lank ñun ñoo lank gaay yi Cheikh Bara Dolly nag wax na lu am am solo wax na lu am solo ginnaaw mbirum góor jigéen jigeen wax na ci ñi wa pe ak ñi bi nga xam gënne wu nañ ko ñoom ne dañuy wax blan Macky salat ñu mel noonu te bari mel nga xam ne ko ci Dolly nak ñew na lañ waxutoon Dolly wax na ko Dolly wax na ñeen rey Dolly wax na ñeen jàpp kaso Dolly moom xam ngeen ne buy lim moom du fàtte boppam nee na Macky Sall moom jàpp na ko jàpp na Ousmane Sonko jàpp na président Bassirou Diomaye Faye lim bi daal fàttewu ci boppam moom ci victime yi la boole boppam moom Cheikh Bara Dolly wax na lu am solo nag ginnaaw bi waa APR génnee ne dañoo réunion defar seen i livre ba tey wax ca la nga xam ne moom la Macky Sall def te waxuñu askan wi nga xam ne rey nañu leen boolewuñ ko ca Bara moom génn na ab livre def te ñi nga xam ne Macky Sall da leen a rey. ak ñi nga xam ne toroxal na ak ñim jàpp dugal ci kaso bi loolu lépp moom baara tënk na ko ci ay kayitam ba tey lenn li mu séddale gaa yi mais baara baara dernière minute lay génn mais nag farba moom ñam na la farba ñam na la de mais loolu lépp naas ginnaaw bi waa affaire génnee rek nga génn loolu naas quoi pim bi leen jox noonu naas jawno bi nak yow si sa bopp yaay nekk nit yow sa bang bang ji nga ba ko kii di farba moom li wax lu la bëgg a tuumal la wala day dëgg ci yow mu ne isaan da nga da nga da nga bëgg boole la ci averi non loolu moom du mën ni xamna ne non day difficile quoi du ni baara non non non du nek du nek mais nag man bu ko far ba waxee rek mooy loolu mu waxi saret laa koy jàppe quoi góobu ma ne da ngay cóoguwaatee donte nag des fois nga ñam ci ko mais góobu boo mën ngi cóog di njeex la pour mu boole la ci yenn yi jàpp mais nag li nga def nii nice mbirum góor jigéen bi nga xam ne jël nga ko def ko sa xeexu bopp nice góorgóorlu ci ba loolu jóge ci réew mi ndax baaxul réew mi bu fi amee. mel ni yenn réew yi loolu mooy waral suuf suñu wëlbati boobu nañ yàlla nañ ci yàlla musal ak yenn yu baree bari yi nga xam ne yàlla da koy def ngir mbugal loolu nga xam ne am na ci am réew muy mbirum góor ak jigéen loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal li nga xam ne tamit ko ci waa APR yi defanteeg ñoom ba mu saf sàpp ci mbirum livre bi nga xam ne génn nañ ko liñ fàttewoon nga fàttali leen ko loolu baax la Serigne Cheikh Thioro tamit waxoon na wax ju am mu yéen dossier yi nga xam ne ni jamono ji askan bi yàkkamti nañu ndax mënuñu ne askan bi dañoo lekk mënuñu ne ñenn ci ñi nga xam ne ñoo fi newoon ci nguuru Macky Sall dañoo lekk alalu askan bi ba pare ñu bàyyi leen di ñuy dox comme pape si quoi ñuy dox nii comme si que mooy loolu noonu dañoo ay nit ñu jublu te alors que ay nit ñu dëng lañ ñoo xam ne lekk nañ xaalis askan bi loolu nag buñ ko càmbaree ba xool ne am na ñenn ñi ci lekk jamono bii nii askan bi yëpp dañoo. askan bi yëpp dañoo taxaw ngir ne loolu nañ ko lijjanti ndax xaalis boobu xajaan na ci askan bi xajaan na ci askan bi farba mii di fërti fërti naan day waxal ay ceeb ak diw ak ñu kenn mënutoo xam farba mii mi ngi ci biir assemblée nag neex na ndax gis nañ yenn député yi ay Abdou Ba ñoom seen di wejeje ji di wax ay wax yoo xam ne waxi rek képp la yéen heure bi bu fekkoon ngeen di dem di dem ak a ñëw ñaan tay ji lañ wara taxaw ci mbiri Abdou Mbaw tay ji lañ wara taxaw ci mbiri farma Ngom ñu leen ràpp ràppee bu boba du ngeen tali yépp du ngeen tali ñu nguur gi da leen a may batman bàyyi leen ngeen nekk ci leen neex bayi leen ngir di chamber seen mbiri xawa xaw yeexal affaire yi ngeen jàpp ne instant yi moy mooy loolu noonu mais na leen leer ne mbir ñu du yomb ci yeen képp ko xamni ni defon nga bi bay boo nga paré té xamné ne ni nga ko wàccewaat bu jaare ci dimon gi rek dina am fu mu jaaraat ci suuf waaja te di nga ko génne loolu moom yéen na leen leer ne mbir yi mi ngi ñëw te affaire yaa ngi seen kaw alal sénégalais ku ko lekk du rees wala boog bu reesee da ko wàcce foo xam ne du la neex loolu na leen leer yéen ñi nga xam ne jot ngeen a lekk yéen waa APR yi fi newoon def ngeen fi lu ne nag lekk mbalit rek ngeen fi deful lekk mbalit xam ngeen li ma leen wax